maa ngi tudd Moustapha ah, xanaa ànd ceeg moom bu baax a baax rek fas yéene cee ànd ak moom toujours rek incha allah rabbi maag maam say man ak moom danoo yàgg lool lool lool lool lool lool sama lépp la léppam laa moom maam say mutuma ci moom témoin mutul ci man témoin parce que man xam naa moom xam na yàlla xam na waaye Dakar laa jógee maam say lu mu xewle ak fu mu mën di doon ci àdduna incha allah rabbi ñooy ànd def ko fu ko waaye gis boo gëstoo gis nga ma ci lu mu mën di doon lu ne rek ñoo ñu bokk nekk d'accord jërëjëf wér gudd fan bésu maamam bii lim ci bëgg mu gën a gaam mën a mën a mën xéewal yi parce que bésam bi da cee sonn lool loola lool te waxuma ne da cee sonn lu ma fekkewul lépp lu mu ciy def rek ñoo ànd def ko maam say vraiment mënu ma kaa fay war na Serigne Touba fonkul lenn dul yàlla ak yonent bi Serigne Touba ñu ngi koy ñaanal baax a baax a baax a baax. Euh, euh, soxna Ndeye ñoo ngi lay sant di la gërëm di sant waa Mouride Info yëpp tey ñu ñëw fii ci Madiane 6 ci quartier boo xam ne village boo xam ne Serigne Souhaïbou Mbacké euh, ci wàllam la bokk Serigne bu euh, di koo xam ne wax naa ko bërki démb daaraam laa jànge alxuraan Eh, seeti naa ko ba tàyyi eh, fekk naa ko këram ba tàyyi tamit di ko xam ne dañuy ñaan di ko ñaanal bët bu set yàlla yokk ay leeram taasuñ ci barkeem ndax nituk alxuraan la woon soxna maam say nag di sëtub Serigne bu ñu koy ñaanal tey bernde yi mu def fii ndogu yeeg yëpp nga xam ne man naa ne bu ñiit wooree ba ngoon nga leel ko euh, jox ko dara aw ñam rek tawféex la joo xam ne macha allah yàlla na dajeeg tawféex jooju noonu ñoo ngi koy sant ci lii mu def euh, ndax tey kenn manqué wul mbooleem ñi mu bokkal parti APR yëpp ak ñi mu bokkal yeneen feneen sax ak ñi mu bokkalul parti ñëpp ku ne invité na la. Euh, nga ñëw teew ci fii ci bisub maamam bii nii ñu ngi koy ñaanal daal mu yàgg koo def te ñu yàgg koo teewee ndax lii dafay lu am solo soxna maam say nag ku baax la ku yaatu la di jigéen gu mën góor bërki démb rek euh, maa ngi koy wax ñu mel nii soxna maam say ak ñeneen ak ñeneen président war na leen gersu ndax askan wi leen ñor ndax gis naa ay taxawaayam ca belal te côté Daara Khoudous bi ba ci Madiane dama fi bari ay mbokk te bët bi set ñu may wax liggéeyam bu rafet bu muy def foofu moom soxna si kon bokkuñ war a dooleel la ndax tey lii mu def fii nii yombut donc kon nag ñoo koy ñaanal di ñaanal ku fi ren rek na fi teew di euh, wen. la sant euh, Serigne Cheikh la Sall. Serigne Cheikh. waaw bis la boo xam ne bisu bu am solo la euh, maa ngi koy wax sànq ki ñu ciy fàttaliku mooy Serigne Sonyou yu euh, Serigne Sonyou bu génération bu mujj bi ñu bëri miinuñu ko euh, ñun xam nañ ko bu baax mu nekk doomu Serigne Touba nekkoon nitu alxuraan nekk nitu sunna nekk nit koo xam ne yàlla kese la daan dund ubbi ay daara alxuraan ñu bëri jaaree ci jàng ñuy jàng alxuraan ba mokkal bind seeni kaamil ñuy jàng fa xam-xam. ba jeexal fa xalil awal ak saani moo tax sëñ Soñ bu damay wax ne liggéey na liggéey bu rëy ci Touba taalif na fi téere bu mag ñu koy wax xuratul ayni tey koo laaj fii am na téere boobu ñu ko tuddee xutut boo naafilaa tey ba pare ci koor gi dem dellu ci naafila solution bi lan la mu def ci ay xéewal yu bari yoo xam ne boo ko defee suñ borom dina la indil xéewal gu bare bari boo faatoo ba nekk sa biir bàmmeel loolu moo tax euh, kooku muy fàttaliku euh, yàlla nañu ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem soxna si itam nit ku baax la euh, ndax day yëngu ci développement ak social di wàcc sur le terrain di dem ci quartier périphérie di seeti nit وحبلنا سورية تديم الحمد لله يا خديم دمي نياني على مماي ما يصير يدو خمني ألك نيو ماي أوتشي لما بقول لني بقتها وما تدك بي ممن يصير يو يلا بق سورية تايبا تجد ديجو ناجي نبي المصفات التهيب لول يصير يو يمو بق ما ورا تاي muy def activité euh, développement ak social ci loolu nga mën a sukkandikoo ba mën a dimbale doomu aadama yi activité bu ne mi ngi koy def moo tax dama koy ñaanal yàlla mu may ko kattan ak wér ba li mu bëgg a liggéey ci Touba mu liggéey ko tey mi ngi def ci Touba liggéey boo xamante ni bii mun naa wax ne liggéeyal sëñ Mountakha lay def ak président de la république ndax doole ja ca war ak ca war yoru ko mais dañ ko ko war a dimbalee état war na ko jàppale mais xalifa général des mourides koy mu jàppale ko ngi dem fu nekk ngir xool ñi nga xam ne dañoo dañoo sonn ci quartier périphérie yi mu dimbale leen ci wàllu lu ñu mën a suturloo ak ci wàllu ndox ak ci wàllu lu nekk kon kooku yàlla ñu ko yàlla fayal ñii fi teew ñëpp tey ñii ay journaliste la ñii ay politiciens lañ ñii ay sëriñ lañ mbaaxam ak yaatoom moo waral tey ñëpp ñoo fekk si ko relation boobu nag moo am ak yaatu ak ubbeeku googu moo waral tey nit ñi fay ko kon dañ koy ñaanal Serigne Touba yàlla na ko fay yàlla na ko suñu boroom fay yàlla na ko yàlla fay te dina ko fay ñi gërëm seen sud Mouride info itam mu nekk site bi nga xam site bu am solo la boo xam ne ñëpp koy suivre di ñuy liggéey liggéey bu am solo di informer nit ñi liggéey bi ñuy liggéey nag dama ne pour jàppale doomu aadama yi ak askanu waa Touba yàlla na yàlla fay leen taxaw leen rawatina yow soxna si ci plateau yi ngay def yëpp dëkk bi ba sama xarit bi général maa ngi dégg sànq muy tooñ naan kii moo xew ci jamono mais yalla na yàlla taxawul la kàttanal la sama xarit bi ñu wax euh, papa mooy ki ma dalal ci Dakar man ak maktar ñuy wax Makhtar Sarr mi ngi DTV ñu moo ñu defal lépp ci rajo Dunya ba ñu ñemee ci lu bare bare bare bare moom itam ñu koy sant di ko gërëm mu nekk journaliste bu nga xam ne nee naa ko jàppal baña a bàyyi bis ngi ñëw fi ñëpp àgg da nga fa àgg ndax mi ngi am liggéey bu am solo muy def te loolu ma wax deret la ci moom ndax tey mën naa ne Dakar kenn koo xam ne yaa ngi yeewoo Dakar te man papaam ci wàllu rajo baa ci tele baa ci lépp lu jëm ci askanu réew mi amut kenn la ci Dakar kon yalla ñu ko yalla fayal mom seigne Fallou Cissé mom ak suñu xarit bi aruna ak yeen wa Mouride info yépp ñi ngi leen di nuyu bu baax baax. Ah, sëñ Abdou Niang ñu ngi lay ziar bu baax fekk ci bisu soxna Mbacke bi nga chaque année daf koy julli ci yonent bi mohammed di sante Serigne Touba si Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Soy bu Mbacke mi ñu ñaanal suñu borom yokku ak leeram te taas ñu ci barkeem te bàyyi fi njaboot gi ñu yàgg koo defal ñaan gi ñun nag yàlla dafa dogal ñu dëkk ci dëkk bi doon ay taalibe Serigne Touba kon bis bu mel nii bu ñëwee dañ fiy ñëw en tant que taalibe mais dañ fee ñëwit ci wuy ci soxna maam say mu invité ñu si nekk sunub jigéen ndax bu yàlla dogalee ñu bokk di yëngu ci parti bi ñu bokk nekk muy APR xew bu mel nii ñëw nga xamne même buñ ci wowul won sax dañ ci tew yalla dogalit mu wat ay tankam ak si ba ci ñun wax ñuko kon su bis bié dañ ñëw daati tew tew ki timit ak mbékté tew ci timit pour ñaanal Serigne saint bu suñ borom yok ak léram donc di remercier ñi nga xamne ne si ne teew nañ fi vraiment ku fi ñëw tay xamne nit ñi wuy si nañ ko donc wote ñu wuy si la nak yombul waaye nak ku am rek xamal na sa jukkal lu rafet la donc kon soxna mam sey ñing koy sante di gëreum diko ñaanal mom mu ñaanal mamam bis bii bu njëwee déwén mu gën koo man tam fekk ko fi ay at yu bëri di profité di ñaanal jullit yëpp ci weeru koor wi ñu ne di ñaanal tamit son excellence la président Macky Sall ci yan bi ko sénégale yi yan yan bi oyof tooy di ñaanal Serigne Mountakha xalifa général de Mouride suñu borom guddal fanam di ñaanal Mouride yi ñëpp suñu borom defal leen ramadaanu jàmm te saa borom dencal ñu yiw fu yàq agut donc loolu tey moo fi suñuy jéego moo fi suñuy tànk ñu ñëw pour ziare ñëw tamit dox fi doxaale fi mbokk ak tanku xaritu ak tanku andando ndax soxna ci dañu and di yëngu ci yo xamni and ci yëngu lo xamni yefi aduna la donc relation bi nak bu demee ba indi li dañu kon lépp rafet di ñaan suñu borom samal ñuko mu gëna rafet kon non rek lañu ñuy yamale di sante ñëpp di gërëm ñëpp di indiwaale timit nuyo directeur Cheikh abdullo ndax dafa genn dafa fee waroon ñëw soxna si waxon ko ko mënul ñëw biñu ñu mu nañu bi ñu bien ni ngeen ma fa téwalel kon tay dañ fi ñëw ñaari teewaay muy suñ teewaayu bopp suñ relation ak soxna si mais tamit teewaay bi nga xam ne si ne suñu kilifa daf fee a teew te yàlla dogalul mu nekk fi di ko ñaanal fa nekk suñ borom defal ko fa jàmm ak xéwal ci barke Seydina Mohamed kon ñu ngi sant ñëpp di jéggul wasalaamaaleykum waaw ñoo ngi bi di leen nuyu aussi tamit di leen jaajëfal di leen baalu àq ci weeru koor bi rawatina juróomi mboolem jullit mboolem koy wax asadu an laa ilaaha illallaah ñu leen di baalu àq di ñaan yàlla mu may gu barkeel koor gu ñu nangu ak mboolem jullit. waaw loolu moom kontaan lañ ci def kontaan nañ ci torop am nañ ci mbégte te ku wax juróomi fan wax sëriñ Sooy waaye ku wax juróomi fan yi koor it wax soxna maam say li nga xam ne mu ngi koy liggéeyal maamam ci juróomi fan yi koor yi muy suñu xarit di suñu wóolare ñëw ci parti bi tamit ñu bokk liggéeyal àndal liggéeyal président Macky Sall mais soxna maam say xeebul kenn boddiwul kenn siisul kenn ki nga xam ku ci nekk xam na ni koor dafa metti ku ci nekk sa kër rek ci ngay bëgg a toog mu dogoof waaye soxna maam say jaral nañu ko bu ko woote ko fa fekk ndax ji ko te jaral nañu ko sëriñ son bu tamit jaral nañu ko waaye soxna maam Sayid jaral nañu ko ndax moo ñu ko ci ndaxte mën na ñëw ci parti bi mënoon ne maa leen mag aussi tamit maa leen gën a jege sëñ Touba. waaye loolu yëpp soxna maam say doxewul loolu waxewul loolu defewut noonu ku ci nekk daanaka bi ñuy waaj a um koor la la commencé woo téléphone mbaa ate bis bi mbaa fàtte woo bis bi ba ci bis bi rek day woote fu ngeen toll mbaa yéen ngi ñëw kon loolu yëg-yëg mënu koo paase ah boole ñu ci boppam mënu koo paase xam ne ñoo bokk Serigne Touba xam ne ñoo bokk bis bet mënu koo paase loolu tamit nekk na suñu teewaay ba tax ñu ñëw ci bis bi ah, di ko ñaanal gudd fan. aussi tamit di ko ñaanal li mu bëgg ci parti bi suñu borom defal ko ko ndax mérito na ko te cëram ngi ci parti bi ñuy wax président Macky Sall tamit mu geesu ko cëral ko li ci des nag dañ koy bàyyi ak Serigne Touba ndax Serigne Touba moom jàpp naa ne kuy leb la ku ne moom ngay lebal ndax yaakaar na yor na lu mu faye te ku ko lebal kerit mu fay la guddi te ginnaaw mooy maamam Serigne Touba dina ko fayal boppam ci waaye Zaire Z ñu ngi lancé appel. di wax président Macky Sall mu geesu soxna maam say tax ko ay nobal tànk ndax mérito na ko liggéey na ko ci parti bi te it xam nañu su ko joxee ñun ñi nga xam ne ci parti bi la ñu nekk dinañ ci gis suñu bopp bu baax kon loolu suñu message la ñu ngi koy jàllale di ñaan yàlla mu egg ci président Macky Sall te mu jëfe ko. maa ngi lay si. Euh, waaw jërëjëf euh, soxna si xanaa sant yàlla rek euh, bi mu ñu mayee fekke ak tal daaw heure bii ñu nekkoon fi ànd ak moom tey tamit suñu borom dogalaat ñu fekkewaat ko di sant yàlla bu baax a baax soxna maam say nag bu ñu dee wax ci moom fii duñu fi jóge parce que nit la ku nga xamante ni. Euh, même bu dul dayoo bi mu am di setu Serigne Touba nit ku wàcce boppam la euh, ànd ak ñun ñu seq mbiru àdduna vraiment mu matale lépp ku mu gis def la ni boppam kon donc tey bu yàlla dogalee euh, muy màggalu maamam mu ciy ñaan dajale ci nit ñu baax ñëpp fii nii di leen berne def li nga xamante ni moom la diine bëgg. li maamam bëggoon lepp def nako ci bisu duñu def lu sant yalla diko ko ñaanal ya, lu mu mën ran déwén yalla na mën lu ko ëpp fukk jinn yoon bi jaay sayyidna Seydina Mohamed. jaajëf soxna si asalaamaaleykum ginnaaw ma sant yàlla ci yonent bi tedd bi sant sama ñaari waju ma ngi ñew fi ma ngi tudd Soxna jaw Mbène Diaw. macha allah bis bi neex na kontaan nan suñu xol suñu xol sedd na guy ndax soxna maam say Mbàkke day nit ku baax di sama yaay di sama lépp di sama xarit wooñu wax ñu bis bi looloo waral suñu teew di nit ku baax nag nit ku am fulla am fayda bëgg li muy def looloo tax ñu teew ci bis bi kontaan waa xanaa muy nit ku baax di sama xarit yàgg nañ xamante politique bi rek boole wuñu dañoo bokk lépp muy sama yaay moo tax ma teew fi xanaa di ko ñaanal uh, gudd fan ak rek ko ak njab borom këram ak botom, ñu dund ba ay sëtam sëtaatam di ko magal ñu di ko ci barke Baara. ma waaw sant yàlla bu baax euh, biñ ci yàlla boolewaatee ren ji ñu ñëw fekke ko euh, sant Serigne Touba bu baax euh, di ñaanal kilifa gi ñuy màggal yàlla taas ñu ci barkem muy Serigne Cheikh Souhaïbou bu Mbacké yàlla dogal ñaan gi tombe ak weeru koor weeru koor ñu xam ne weeru ngëneel la ñëpp xam taxawaayu Serigne Souhaïbou bu ci senegal Euh, rawatina ci yoonu mouride bi ñepp gis nim taq won ak alcorane bu ko yalla maye bisam mu tombi ak wéru koor lool dañuy xamne lepp euh, lool lu jaadu lool war am la euh, ki ñu fekk ci tay ji nak muy soxna mam say nek suñu jigen man sama xarit la sama lepp la vraiment lepp lu ñuy def ñokay andando boole nek lu bare bari ba taxna suame lu melni su amé mu wote bis bi Euh, dañuy ñëw ànd ak moom bis bi euh, màggaloo màggaloo ko ak doom ak moom ba mu jeex tàkk. waa liñ koy ñaanal mooy liñ ko doon yàgg ñaanal rek mooy euh, yéene ji mu am ci maamam ba di ko wooteel bis bu mel nii dajale ay xaritam ay mbokkam def ay bernde vraiment ñëpp daje waxtaan def ay ñaan ñaanal kilifa gu tedd gi dañ koy ñaanal loolu. Euh, chaque année mu koy gëna man ndax li vraiment lu am solo la ndax retrouvaille bi rek jar nako ndax euh, dang fi gis ay nit ñoo xamanteni gëjoon nga leen gis trop vraiment bis bi waral yalla may ñu occasion bi ñu daje fi donc dañ koy ñaanal euh, li nga xamanteni am nako ci carton ba def ko carton gogu yalla di ko yokal man kuma Seck la tuddu ah xanaa kontaan rek kontaan lool nag si bis bi ndax soxna maam say Mbàkke bu wootee nii rek la mën a mel ndax tànqam lu wut kenn macha allah ku xewle mu juk ta manon na ni man sëtu seigne Touba la amna ñu ñooñ jëraluñ ma déplacer mais soxna maam sey tankam lu wut kenn ku xewle sha allah mu juk ñew kon nak bu xewle rek ñep ni nga ni la wara mel parti bi ñep wara juk ma sha allah ndax ku ne xamna jambar la ci parti bi di liggéey si parti bi lu reuy ci parti bi kon bu xewle parti bi ñep wara ñew kenn wër ta tànqam la waaw. xanaa ñaanal ko nak mu diko magal màggal ay deweni dewen ba dundu ba domam yi diko magal ci barke yonent bu tedd bi yàlla yàggal ko ak boroom këram bi Cheikh Abo Mbacke Madiana ma yàggal fi waajuram buy muy Serigne Cheikh Say Mbacke bam lim yéene ci ñoom lépp mu matale ko ci barke Sëñ Fallou

ñaareel bi mooy ma ñëw ci aspect politique ñu bokk parti politique muy jàmbaar ci parti bi invité vraiment responsable APR yi nekk ci département bi yëpp ñu ñëw fi tey ji dogee fi ñaanal fi Serigne Soye bu Mbacké radiyallahu anhu suñu borom yokku leeram ndax Serigne Soye bi ku ko xam xam ni nit ku am euh, solo la woon ci diine islam am solo ci yoonu murid ndax euh, liggéeyam du lu ñuy lam lamé ci diine ji téere yi mu bind mi ngi fii yaakaar naa ni léppam weeru koor la sag la ci ñun talibé sag la ci ñun dom sag la ci ñun ñi nga xamni ci ni ci kër gi lañu bokku ñu ñëw ñaanal ko fi ni defal ko ben journée bo xamni ne ci dañ fay jangal alxuraan khassida ndax loolu moy bëgg-bëggam ñëw ànd koog sëtam bi nga xamni yaqul dara vraiment ci bis bi di mam say mbacké ak sëriñam bi nga fi nekk di sëriñ abo mom sëriñ sidi ñuy ñaan suñu borom dal mu nongu ñaan yépp def ci réew mi jamm bañu man ko magalat dewen ci at mu ñëw gën dakk ci barkeb borom bis bi. man la soxna Mami Silla. soxna Mami Silla ñu eggale ci bisub euh, soxna mam Say Mbacke bi fi ci Madiyana Ciss wax euh, juróomi fani koor nak xeli yëpp daje ci Serigne soxna bi Mbacke naka la ko dundee tey sa diggante soxna mam Say. ah ma sha allah di sante yalla di julli ci yonent bi di sante Serigne Touba di sante Cheikh soxna bu mbacké di sante suñu mam suñu papa Serigne Cheikh Say mbacké di ko ñaanal yàlla mu dund yàlla may ko gudd fan ak wér parce que lépp mooma bis bii nag wax dëgg yàlla yàgg nañ koo waajal heure bu jubsee lépp lu ñu jàpp dañ koy bàyyi man nag damaa ñibbisi si wante ba ma nekkee Dakar it heure bu màggal gi desee une semaine damay ñëw fii taxaw ci wetu maam lu mu nekk ma nekk ci lu mu lu mu lu mu lu mu nekk ma nekk ci jàppale ko ba màggal gi jeex ma jëlaat samay bagages dem ñibbi waaw kon màggal gi moom suñu màggal la. te it luñ ci deful dañ koo amul te soxna maam say macha allah defar na ba mu baax yéeneem rek la yàlla eggale parce que màggal gi ba mu ko dalee def du tey dafa yàgg lu ne def na ko ci màggal gi ba barki démb rek nee na ma may mi mën a ko mbàkkee mu ne ma màggal bii màggal suñu sama gi ay milliards su ma ko amoon def ko ci màggal gi lu ma lu ma ci deful dama koo amul te loolu am na lu ma ci xam parce que maa moom dañoo yàgg maam xol bi dafa rëy macha allah nekk nit ku baax ku ñàkk ki ñaan ku rafet xol ku yéene ñëpp jàmm man da kenn la ci man maam say kenn la ci man man Mamy Sylla maam yërëm na ma bëgg na ma fonk na ma fonk na sama doom jii ñu ko jox muy sëñ aboo mii parce que liñ bokk dafa bari damaa bokk moom lépp wërbatiku mu jur sama doom mu jur sama doom ñu tuddee ko borom këram mu yor ko di def ci moom lu ne nag man xaw ma lu mbubb di jar xaw ma lu daal di jar ginnaaw yàlla ak yonent bi sëñ aboo Mbàkke mii lépp lu mu sol suba ba ngoon jot ak lépp lu dee suba ba ngoon jot ci moom ginnaaw yàlla ak maam say moo ko rey kon kooku amoo fayam parce que ku la yoroo sa doom di def ci moom lépp kooku amoo fayam di ko ñaanal gudd fan Mbàkke ak wér di ko ñaanal yàlla lafal ko cet ci barki Seydina Muhammad maa ngi koy ñaanal bis bii mu dem bañ koy tànt koñ ba koñ macha allah sax mbooloo mépp ñëw nañ wante dañuy ñaan yàlla rek mu gën a yaatu parce que maam say bu amee ñëpp am dafa ñàkk ki ñaan man xam naa ci dara dafa ñàkk ki ñaan dama koy ñaanal mu bokk ci milliardaires yi Serigne Touba yi yéene gi mu am ci bis bii muy bis sëñ Serigne bu bii yéene googu yàlla ko yàlla ful mu nekk xéewal yu bëree bëree bëri ak képp ko koy koy yéene ci barki Seydina Muhammad wax alhamdulilah mina seytaane rajim di sant Serigne Touba suñu yaakaar tey ak ëllëg ñëw fi en tant que talibé ñëw fi en tant que tamit ku fi teewal baayam muy suñu kilifa suñu waajur président Moustapha Cissé Lo eh, ndax xam nañ digganteem soxna si xam nañ digganteem sëriñ Sonia bu xam nañ digganteem sëriñ Cheikh Say ba tax na bu fi nekkoon foog naa ne mooy fi ñëwal boppam waaye daf ñoo boole suñu kilifa Albasirou Diagne mu nekk suñu mag jiitañu nekk suñu kilifa bu ñu teetee bu ñu yaatal ci lépp lu mu mënti def ak lu mu mënti di dox. bis bi na wax ci yomb na yombut ndax soxna maam say taalibe Serigne Touba la mais seetu Serigne Touba la te foog naa ne suñ suñ fàttaliku Serigne bu suñu jàmbaar ja moom woo ñu si daf ñoo bëgg a xettali kon lu ñuy jàpp dañ koy bàyyi ñëw ci ndigalu président Moustapha si Lo ñëwti fi en tant que taalibe Serigne Touba di wax na lii lu rafet la ndax foog naa ne ndaje mi gën a am kon su yàlla dogalee mu am ci weeru koor mu nekk weeru njëgal di weeru yërmaane di weeru xéwal mu woo ñu si ngir berneel ñu si ngir sëriñ Souhaibou dañ koy ñaanal rek li mu man ren mu déglu man du ko ëpp te ñu ànd kook moom. mën nañoo wax na taw waxuñu ci wàllu politique ndax dañuy ñaanal suñu kilifa président Macky sàll ndax mandaam bi yàlla su def mu nekk mandat bu oyof nekk mandat boo xam ne waa Touba da ci gën a gis seen bopp gën tey jariñu ndax mérité woon nañ ko te def nañ ci loo xam ne tamit yeneen dëkk yi defuñu ko ci. ñun daal kontaan la ak di wax ne ay ndaw rek lan te ndigal rek ci la dox ci la tënku. moo tax mënuñu def dara ci suñu ndigalu bopp lépp lu ñu def ci ndigalu président Moustapha Cissé Lo ak ñim ñu bàyyeel de président Bass Diagne ak Mor di wax ne kontaan nañ nag di ñaan bu baax yàlla na yàlla faj ajo yëpp ci ak saison yi bu jaw koy wax di sëtub sëñ Baara foog naa ne lu waaye gàtt gàtt dégg na ku ne xam na ne nag euh, baatin baa nga guy mind mu ñëw fii nag di këram mu ànd ak bëgg fàllu mi tubaar fakàlla macha allah ku ne xam na ne soxna maam say Mbàkke ak soxna Mbène mi ñoo bokk lépp ndax lépp xaadim borom jumaa ji rek la Mamour Anta Sali Sine ba ñu bokk lépp nag kon ñëw gi mu fi ñëw dafa war rëymal fa ndiw fi naar dafa bokk ci gàdd gi ñoo bokk Ahmadou borom jaam yi lépp Serigne Touba la kon bis bii daf cee war a ñëw teew ci moo bëgg fàll mi ànd def forte délégation sañ sa ba jekk tubaar fakal la macha allah xam ne lépp maam mi menn la rek ñu def teewaay bu rafet nag te seen tànk yi du ne ndax dëkk bi ku fi taxaw ku ne wala nga taxawal baas rek teew nan fi li seen maam nekkoon rek ci la nekk soxna Mbène Diaw. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi santaat Serigne Touba bu baax a baax di ñaanal Serigne Mountakha Bachir mi nga xam ne mooy Serigne Touba ci kaw suuf yàlla may ko fanu gudd kàttanal ko ba yéene ji mu am liggéeyal Serigne Touba yàlla àggale ko na mu ko bëggee te murid yëpp doon ci ay seede di. <clears throat> Euh, bis la boo xam ne bisub ñaan la waaye bisub ko jàmbaar la ci lislaam jàmbaar ci yoonu murit ndax sëñ Chouaïb bu ko wax xam ne nit la ko xam ne ci charia rek la daan dox fépp fu diine ak si tey jàpp naa ne ci Sénégal euh, ba léegi ab liggéeyam àgg na ci ci xam-xam ak boroom xam-xam yoo xam ne moom moo leen jàngal kon buñ jàppee bis bu mel ni di ko ci ñaanal nga dëkk ci dëkk bi yaakaar sëñ Touba jàpp naa ne da ngay bàyyi yitte yëpp ñëw teew. laneen tamit indi ñu fi muy soxna maam say Mbàkke mi nga xam ne sëtub sëñ bu la moom it yàqul dara ci mbir mi di nit ku jàmbaare di actrice de développement mais nekk tamit di politique jàppale président Macky Sall ak relation particulière yi nga xam ne amante ne ko ak ndaw ñi nekk ci dëkk bi moo tax ñu déplacé wu tey ñëw ci bis bi mu doon bis boo xam ne bisu mbégte la tamit ndax soxna maam say ni ma ko waxee moom maam sayum ñëpp la ndax yéen k ko gisal seen bopp ñi fi dajee ci ay politique moom rek moo leen mën a dajale ndax ku ne xam na politique ni mu bindoo waaye tey boo ñëwee pouvoir ak opposition xàmmewoo ci kenn ñëpp déplacé wu nañ ñëw ndaw ñi surtout nga xam ne dañoo féete ak moom ñëw teew ci bis bi loolu lu ama am solo la. en tout cas ñu ngi ñaan tamit yeneen responsable yi ñeneen ñi nga xam ne ci dëkk bi lañ dëkk ñu roy ci lii jànge ci lii. te xam ne politique tamit du ay rivalité yuy continuer di wéy rek dañ ciy toll def ko buñ ko weesoo am na leneen lu ñu boole te moo ëpp solo lii lépp muy dëkk bi di Serigne Touba mooy dëkk bi tamit ci defar ko te jàpp naa ne soxna si ci loolu la nekk moo tax bi mu wootee tamit ñëpp bàyyi seen yitte ñëw fekk si ko fi kon soxna maam say ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax te jàpp naa ne li ma wax mun naa ko waxal ndaw ñi fi teew ñëpp ñoom général Diène Guèye ñi ngi nii ñoom Basirou Mbuub ñoom Xaadim Silla ñëpp bàyyi nañ seen yitte ak jigéen ñëw teew te jàpp naa ne loolu moom moo ko njëkk a réussir nit nag su wootee ñëpp wuy si ko jàpp naa ne moom moo baax te maam say jàpp naa ne loolu la séq ak nit ñi kon ñi ngi ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko ci barkeb maamam Cheikhul Khadim barkeb maamam sëñ Chouaïbou lu mu def ren bu déwénee yàlla na man lu ko ëpp mu dem ba dëkk bi yëpp bu juróomi fan koor gi ñëwee kenn dootu xalaat fenn lu dul ñëw rek ci maam maam say àndandoo moom bis bi te ñaan tamit liñ ci ñaan ci bis bi jàng ci alxuraan suñ borom def ko ay xewal soti ko ci askan wi way simit soti ko ci biir dekk bi nga xamne ci la dekk kon ñi ngi sant ñep di gërëm ay satu sumaré wa kontaan rek kontaan mam say wax deug yalla fu mu ñu woo dañ koy wuyu ndax mam say ñëpp ko xamé baax yaatu mu am fu bari fu ñu jaar maak mom motax fu ma waree dama koy wuyu wax dëgg ñu koy sant bu baax di ñaanal bëss bi lepp lu mu ci sentu dal mu gis ko ñu ngi ko koy ñaanal bu baax. Euh, Dakar laa bàyyeekoo. Dakar laa bàyyeekoo waaw. dëgg la dëgg la dëgg la jaral na ma lu ëpp loolu. dëgg na jaral na ma lu ëpp loolu. waa di ko ñaanal lépp lu mu jublu daal yàlla bu mu ci gis lu ko tiital. wax dëgg yàlla yàlla yokk ay xéwalam suturaam vraiment may ko kàttan may ko gudd fan waaw maa ko koy ñaanal bu baax nit ku baax la wax dëgg yàlla nit ku baax la. fay. wa sant yalla bu baax di nuyu mbokki mouride yeb mbokki taalibe yeb di sant bagn bañ waté koor gi ci jamm tay mu nek bis bo xamné ci lañuy ñuy suñu sëriñ ba sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke mi nga xamné kuko ku ko koor rek tuddu ko soxna maam say nek sët ci mom nek suñu xarit suñu sëriñ di woté diko di fi ci Madiana 6 kon japp na ni dañ fi wara tew ngir ñaar yef ngir Serigne Touba miñ bok ak euh ta nga xamni ni fim fi ñu ci fété wax deug yalla dañ ko ci sante bu baax baax téye nañu ngir Serigne Touba japp nañu xam na ni ci njabootu Serigne Touba lañ motax luñu nek mu nek ci benen wàll bi muy wal aduna ñu koy yëngu-yëngu aduna ñu bok ci muy politique mu nek ci jambar wo ñëpp tay bo fi ñëwee. doo xam fu waay bokk ñu ñëpp li fi am toll tey mooy ñëpp taalibe lañ mu ñëw defal ñu bernde yu mel nii dañ koy ñaanal ñaanal ko lii mu yàgg koo woote te lépp loo xam ni def nañ ko ci ngir jaamu yàlla suñu borom yàlla na ko nangu te yool bi yàlla nañ ko jox Serigne Choy bu Mbàkke en tout cas daal dañu ñëw daal pour ndokkale ko ci bis bi ñëw sàkku si ñaan ñëwit wax dëgg yàlla wan ne ko euh, ku mën a leble la. waaw ndax bisu jàmbur du ko tànqamlu te lu mel noonu bu amee dafay aajowu ñu ñu ñu ñu ñu ñu taxaw taxawaay bu mel nii looloo tax suñ taxawaay mais sant la baax a baax ndax fii ku fi ñëw xam ne tubaarkàlla dara manqué wut lépp macha allah mat na te loolu noonu ak jamono ji ni méttee dañ koy def lu dul ñaanal ko daal xéwal yi yokk jërë ngeen jëf. xaadim li li li. ah xanaa kontaan rek di sant yàlla di nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yi di leen ñaanal ci weeru koor wi ci bisab suñ soñe bu bi lépp luñ ci woor suñ borom fulal ñu ko tasaare ko ci bépp jullit waaw ah, maam say suñu xarit la moo tax ñu ñëw teewe bisam bi ndax seq nañ ko ak moom waaw seq nañ ko ak moom ah, te maam say di nit ku baax di nit ku yaatu di nit ku neex àndat xeebalut kenn bisam moo tax li muy xat-xat tey ñu déplacé wu ñëw ci bisu euh, soxna maam bi ndax bisu sëñ soye bi moom euh, ñëpp ñoo ko bokk ndax sëñ soye bu def na li mu war a def lépp ci yoonu murit kon euh, su maam say bokkee foofa te ñu amante ak moom kon su wootee bis bi ñun dinañ ñëw jàppale ko ci bis bi loolu moo taxoon ñu ñëw ci waaw dafa am nag cër bu mu ñu jox loolu moo tax waaye wax dëgg yàlla mënuñu koo fay daal moo tax ñu doon jéem seek ñëw fii di ko jàppale ci bis bi waaw loolu daal moo ñu indiwoon ci bis bi tey. Mm. waaw maa ngi koy ñaanal fan wu gudd waa ndax xéewal di ko ñaanal wér comme ni ma koy ñaanal bépp jullit euh, di ko ñaanal lépp lu mu ñaan ci bisub maamam bi suñ boroom fulal ko ko musal ñu ci saytaane euh, lépp loo xam ne bëgg na ko yàlla na ko suñ borom jotale te bu ko jotee maanaam mu muurloo ko mu doon njariñ ci moom. te li muy euh, yóotu daal ci yoonu murit yàlla na ko suñu borom defal waaw di ko nuyu di nuyu sa yéen di leen nuyu encore une fois yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen liggéey encore une fois waaw waa Mouride Info. waa maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax parce que seen liggéey moom vraiment rafet na teg ngeen ko si yoon ah, xam naa ni it li seen liggéey teg ngeen ko ci li méngoog li dëkk bi bëgg kon ñu ngi leen sant ci loolu di leen ci gërëm.